teew wala déet foofee ca de justice bu Dakar bokk na nag tey jii ci li nga xamante ne enquête yéeni kaay moom la xëy rek dëxëñ ci xëtam bu njëkk moom Ousmane Sonko ak stress bu ca bëri bile rek ci coowal procès bile bokk na nag ci li nga xamante ne suñuy naataango ñu ngi koy samp waaye boobaak léegi moom jotul benn convocation lay nag di leeral goo xam ne mu ngi tukkee rek ci maître Ousseynou Ngom bokk ca ña nga xamante ne ni ah, ñoo ngi koy layool waaye daal la enquête gën a sax leeral bokk na ci daal la nguur ak Sénégal mi nga xam ne dafa mel ni déggul benn yoon Ousmane conditions yem wéy rek di teg enquête yéene kaay itam waxtaane ci beneen pàcc bi ah, li nga xam ne moom mooy jafe-jafe wàllu ko la le thème mooy yéene kaay nañu nag Dakar dafa mel ni rek ci xottu ko nen la daal di rek toggati loole naka naka noonu saa yu ñu convoqué Ousmane Sonko mel ni rek tiitaange mu ngi rëy di genewaat askanu ko Sénégal Dakar tam nara mel ni rek dara doxul kenn demul kenn dikkul jàpp leen ni ah, a léegi rek njort am na ci teewaayu ko Ousmane Ousmane Sonko waaye daal boobaak léegi ah, li ñu nemmeeku tam bokk na ci daal ñi nga xam ne ñoo féete ci parti Pastef des rek di woote ab ah, mobilisation Vox Populi ah, yéenikaay moom ci cooloole nee na Ousmane Sonko Ndeye Khady Ndiaye ñu ngi leen di xaaral nag ci kanamu àttekat ba ndax Ousmane Sonko dana ci teew wala déet loole leeru ca kenn waaye ñoom waa Pastef dogu nañ rek ngir gën ko aar bu ko weesoo waa forum des justiciables ñoom nag ñoom ñoo ca yekki ay kàddu jàpp nag ni ñoom ñu ni daal moom moo jëm ci euh, fexe ñu respecté loolee di droit wàllu ko euh, défense ba bu ko weesoo daal cadre ka Pastef ñoom taxaw nañ euh, fa ñu nekkoon boobaak léegi yéenikaay bi tam des nag ñun ci loole ñeel nag mbiru ko communauté mankagne boobaak léegi daal askan mi ñu ngi cay wax waaye ñaa gis nag ñoom ñoo taxaw jamono ji di aar seenu maire ba noppi rek di xamalu Ousmane Sonko nag war a xam rek la muy wax bu ko weesoo LD des rek di naqarlu nag kàddu ya nga xam ne jot nañu ca yëkkati boobaak léegi loolee ñooñe euh, dégguñu benn yoon kàdduy Ousmane Sonko ñu jàpp nag ni cootu ko le peuple quotidien tey jii usmaan Sonko mu ngi janoo ak ëllëgam dont sax jamono jooje euh, mu ngi rek taxaw mel ni kuy diiroo mbagg ak justice bu Sénégal le peuple yéen teg ci tax ni euh, bu ñu koy xayma nag moom Ousmane Sonko woote gii muy woote dafa mel ni ca boru ko dégguñu ko benn yoon ndaxte nag ne nañ bëgguñu benn yoon rek ku jël Casamance di ko mbubboo ngir daal di ko yóbbu ci coow lu ni ca jamono jooju itam ca boru ko yëmbal ak Kër Massar am na ci ndaw yoo xam ne daal taxaw naña ngir aar seen askan bu ko weesoo ab état nag bu fekkent ni rek dafa ñàkk doole askan wi daañu ko yëg bu baax a baax loolu nag doon loo xamante ne ni le peuple yi mu ngi koy xam xamle moom mi sax fësal ci beneen pàcc ne lépp loo xamante ni daal la moto la dañu ko tere mu daal di daw fii ci biir Dakar source a yéen kaay moom xëy nag te ji mbir mi des rek di ñu xamal nag ne bañ dugub kenn mënu koo gis jamono ji ndax waa jamono ji daal jàppale ni ca boru ka cité kër góor gi moom la ñu fa nemmeeku nag moom mooy dem baak dikk ba mu nga fa na mu waree waaye terewul ba léegi ndaw yi féete rek ci boru ka Pastef jàpp ne mënees nañu rek jël Ousmane Sonko daal di koy yóbbu loole bokk tam ci li nga xamante ne ni nemmeeku nañ ko surtout que patriotes yi nga xam ne ñoom tamit dëggu nañu ngir teral ni mel ñoom ñooñee xëy nag ñu fekk leen surtout que journal bii di l'info yéenekaay bi nag nañu ñoom patriotes taxaw nañ bu baax a baax ngir daal di aar Ousmane Sonko jàpp nag ni atum 2021 ak léegi njiitu réew Macky Sall benn bëgg-bëgg kot la am moom mooy fexe ah, ba dindi fi Ousmane Sonko di seen njiit waaye daal loole ah, du antu Pastef amul benn plan A wala boog ab plan B jàpp plan benn plan lañ am moom mooy fexe ba samp Ousmane Sonko ci atum 2024 donte nag jéem na jéem ba sonn ñoom ñooñu nee nañ nag daañu gunge seen nëpp njiit yi nga xam ne ah, moom mooy woteeg présidentielle ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février bi ñu jëm Les Échos yéen bi nañu nañu nag tey jii buñ koy xayma Ousmane Sonko du ca bokk waaye Ousmane ah, kii di Adji Sarr nag moom dafa mel ni rek beneen rëpp biddéew lay taxawee ah, njàqare am na ci diggante Dakar ak diwaanu ah, Ziguinchor bu ñu sukkandikoo ci suñuy naataango Libération yéenekaay moom tey la mu xëyee bokk na ci nag mbiru ko taskatu xibaar bi di Serigne Saliou directeur de publication bu yor yor jàppale ni woon nañu ko ca sûreté urbaine tey ci talaata gi la waral lu ni mel nag bokk na ci ne signé magistère loolu daal bokk ci li nga xamante ne ni ah, moom moom ngi ca yëkki woon na ay ah, kàddu tàggat yaram réew mi sport la ñu ci àndal mën nañu nag bu lay ja dafa mel ni ci booru ko Angleterre eh, di Italie kenn mën a su koo téye jàppale ni amal na nag fukk ak juróom benn bit ba nga xam ne jot na ko dugal ci bileek saison bu lay ja ah, des rek di dàq jamono ji nag toro Martinez ak Victor Osimhen bu ko soo yéenekaay bi des ci mbiru ka Basketball Africa League daal dañu xamal nag ne AS Douanes la am mooy fexe.